société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen revue de fekkati ci xëtu yéenekaay yu bari la ko waral mooy coowal dossier médicalam bi fayegut booba lépp dossier mujjee téere ci mbedd mi procureur ne da cee ubbi enquête awakaay Ousmane Sonko ci réew mi nee nu jaru ko ndax Ousmane Sonko sàkkuwul ci procureur mu sàmmal ko ay données personnelles am Vox Populi dëggal ko ci booba lépp yéenekaay awakaay Ousmane Sonko naan procureur moo ndax dangaa fàtte fàtte li fi xewoon ñaar fukki fan juróom-ñeent weeru atum keroog ba nu ko tegee loxo foto ko filmer ko ba nuppi fësal ko ci réseaux sociaux ya procureur yow loola ba muy xew foo ne woon maître Ciré Clédor Ly yokku ca ne li ñuy xaar ci yoon ak kilifay réew mi du protection données personnelles Ousmane Sonko waaye mooy ñu def li war te teggi ko loxo ndax wér gu yaramam mayeetut mu nekk fa nu ko téye Macky Sall ak Ousmane Sonko wal fu quotidien gis booba jamono nekk ku ne yaa nga téye fa diggante ñoom ñaar société civile bi booba jamono ña ngay seeti pexe ngir ñu bàyyi Ousmane Sonko bàyyi képp kuy détenu politique 24 yëgal ñu ne doxub ñaxtu bu am mbooloo lañ woote démb ngir jàppale Ousmane Sonko ak képp ku teg loxo te tegwut ci Aminata Touré yëkkati fa kàddu ne Ousmane Sonko dañ ko war a bàyyi mu faju ji Déthié moom ma ngay fàttali ni seenu xeex du ñoom ak takk der waaye ñoom nguur gi la te itam projet Ousmane Sonko Déthié nee na kenn mënu koo dakkal Alassane Seck njiital LSDH ne mbooleem kuréel daje yaa ngay sàkku ñu bàyyi képp kuy détenu politique waaye it bàyyi Aliou Sané te dakkal topp gi nu koy topp laas ne woowale càkkuteef du société civile bi doo nga ko am ndax njabootu ñi ñu teg loxo te ñu ne ci kaso yi itam na nanu ca boobaleb doxub ñaxtu Les Échos ne ñu mbooloo mu bari moo ca teewoon Sonko nag yéenekaay bi nee na neew fa woon waaye daanaka moo gënoon a fës ca ndaje ma ndaje mooma enquête ni mu ko tuddee mooy wooteeg moom sa bopp gi l'appel yi doon sàkk ñu bàyyi détenu politique yi yépp lii lépp nag l'info ne F24 la moo dajale ba noppi artu kilifay réew mii ci doxub ñaxtu booba ñeel sàkk ñu bàyyi ñu ñu tëj ci kaso yi yéene kaay bi nee na doonte préfet yéex na leen a jox autorisation ngir seen manifestation booba waaye teewut mbooloo mu bare bare wuy si na F24 ak yeneen kuréel yi bokk ci société civile bi te doon wone seenu naqar ci tolluwaay réew mi rawatina ak ni nu tegee loxo ñu bare bari te société civile bi itam bëral na bëgg-bëggam ci booba lépp doxum ñaxtu ngir élection bu leer te jaar yoon am ci Sénégal Macky Sall booba jamono réew mi di dañu yëgal ne ma nga France seeti na Emmanuel Macron ba mu dalal ko yéene bi ne li gënoon a fës ci seen waxtaan woowa nag mooy lëkkaloo gi dox diggante Sénégal ak France Le Soleil ne la gënoon a fës ca waxtaan wa diggante Emmanuel Macron ak Macky Sall mooy TER di train express régional laas ne ginnaaw bi ko Macron dalalee ca Élysée moom Macky Sall waxtaan nanu waxtaan yu yàgg la ca tukkee mooy diggante Sénégal Sénégal ak France lëkkaloo gi yéenekaay bi nee na tey la gën a dëgër booba jamono les échos dugal ñu assemblée nationale neenu xeex bu mitti moo fa am diggante Abdou Mbacke Baara Dolleeg Abbas Fall député Touba bi yéenekaay bi nee na daa dànqub kurpeñ rek yóot Abbas Fall naka la kooka bëgg a fayu yeneen député dox seen bi ne lii lépp mi ngi xew keroog ba ministre des finances et du budget Mamadou Moustapha Ba di janoo ak député yi ci assemblée nationale booba jamono université bu Ndakaaru ña ngi fay indi a coppite doon waxtaanee dëkkuwaay wi kaaraange geeg njàng mi ci la ñu jëlee dogalu dakkal liñ naan clandotage maanaam kenn dootul mën a fat kenn di ko dëkkal waaye itam yéenekaay bi nee na police dafay teew ca campus social étudiants yi it daanu leen wàññi daanu jóge ci téeméeri junni wàcce ba ci juróom-ñaar téeméeri junni Sud Quotidien xëy defab gëstu ci njàng meek njàngale mu kawe meek ni muy sooxee buñ duggee ci at mun war wote tax journal bi ne université bu ndakaaru ma ngay wër fu muy teg tànkam Amadou Ba moom dana teg tànkam tey ca Thiès tournée économique bi muy sumb fanweeru novembre moo ko fay yóbbu booba jamono libération dellook ñun ca waaxi gànjol gaal ga fa suuxoon surnaal bi nee na gisagum nan juróomi néewu nit ñam yaboon ñeenti jigéen laak benn góor kenn ku ne woon ca booba leb gaal di seede ni fanweeri nit lum gàtt-gàtt des nañ ca ndox ma seen gaal gu ndaw gën duggoon mu leen doon jëmee ca gaal gu mag ga leen waroon yóbbu bitim réew yéenekaay bi nee na moo këpp wëlbati ku jox kàddu ma Gueye mi ñu toftal ci meeru gànjol mu ne luy jege junni ndaw yu cosaanoo gànjol bàyyeekoonan ca dëkk ba jël gaal yi bitim réew réew mi di Sénégal bi le jour nee na ngénteelu njëkk di ngénteel taaw ak yebbi ba cay am journal bi nee na pression bu rëy rëy la nekk ci kaw soxna yi la ko waral mooy may gu njëkk ga danga ko fay bam jeex xaalis ba cay génn yépp nag journal bi nee na tax na couple yu bari ragal a jur doom journal bi dem ak ñun ci ngénteloo xam ni million yu baree fa génn wëlbatiku nag yeggee ñu ay seede Mariama Fall kenn ca ñoom ne xaalis ba mu waroon jëndee oto moom la yebbee Seynabou na ne bu wasinatee ne ñeneen pexe ba nu ci am mooy soreel lool seeni njur bun wasinee balaa noo wasinati yàlla xam lépp ci ragal ngénte yuy gën a tàng jahannama ay jongante yu tàng jër stade nee na dana am tey ca Europe Barça Real daanu laale derby United City itam yéeni kaay bi nee na dana am ca Old Trafford sunu lamb moom xëy ci combat bi war a dox diggante Ama Baldé ak Modou Lo nembaruk parcelle gaa ngay dox jëm ca ndax àllarba bi dana amal open press am tàggatu ba nuppi janook taskatu xibaar yi fii la nuy yem ci xibaar yi ci yéeni yi tey ñaanal leen kendal ak jàmm